esse valor. ñu koy ziaré mom tam bax bax rek diko contané xamna xam mi ngon ci ité way daf ko bay rek ñew ngir gunge ñu ci waccay magal 2024 gi ñu ñaan suñu borom yóbbuñ ci jamm rek bañ and ci tawféex eh, ci barké borom Touba ci na suñu borom nak def ci posi nak ay xéewal <laughs> su ko défé rek ñu mën di ndax taalibe Serigne Bamba dañu wara am ay xéewal posi da wara di fess del <laughs> su ko défé classe mass gi buñ bëggé ñu mën leen yobalé ah. yobalé bu yomb acca ma ngi non jox leen ci xéewal ya <laughs> sama rek ñi koy ziar wax mass mass ñi acca mi ngi non diko bëggé diko ziar momit di leen yëgal kon rek ba tay safar gi nga am ni ñu koy amal kon fii ci Kër Mbaye Fall mu yem ak dimanche le ah, kon ñu bàyyi ci xel baax a baax rek fii ci ah, ko ñu diisoo acca ñoom ñoo ko tuddee diisoo FC diisoo acca sëñ Modou kon ñu daal di jàllal rek ci ku tedd ah, ba tay mu nekk rek ci nattu yi nga xam ne nii mm-hmm. gàddoon na ko ngir dimbale ñu fi ñu nekk nii tey yaakaar naa mm-hmm. bu ñu amee jàmm ak xéewal loolu moo ko waral loo ñuy ñamalaat ci Serigne Touba ak yoon wa ok jërëjëf sëñ Massamba di siyaaraw sëñ Fallou ci xasida yom solo njàng mi xasida googu am daw daw yaram la indiwaat ba mit siiru xamee ni ci biir tukki bi sax hmm. bi muy départ jóge ndar googu hmm. boobu la doon bind xasida gi mu doon jàng hmm. muy assir muy uh, xasida gu daw yaram gu triste boo xamee ni waxin wi rek boo ko déggee dangay xam kiy wax uh, ak fa mu tolloon nga ni xasida googu bi muy tukki dem sax booba booba lay woo bi mu koy defar lay woo ki ne wax Ahmadou Ndiaye maa béy Mm. di ko xamal ne ko damay liggéey yonent bi sallallahu alayhi wasallam damay dellu si mm. booba ci la koon gii di di asiru mm. ak seede doon sama diggante ak yéen su ma dellusee moo tax bi sëriñ bi ñibbisee ci ay fan Cheikh Amadou Ndiaye maa bi génneen xasida googu wan ko wan ko wan kii bi xasida googu ci lay wax naan xusuuri xallat wal ahlu an ni tafarraxat li mat illadi an hum di xasiru samay kër de tasaaroo nan sama njaboot wa samay kër rap nan hmm. samay kër tasaa samay njaboot tasaare nañ len hmm. ta dara wor lu ko lu tagge yonente bi sallallahu alaihi wasallam nga xam ne day doy sëkk rek nit ki am dom tout tout tank hmm. mu war ko taxaw mu tolu ci jang wara tolu ci ladanti nga won ko ginnaw dem té dañuy gis jamono yoy bi mi def asiru té rew nak bamuy dem denkané denkané dénkaane ne gi denkané ko ñu sëriñ fallo ka denkané ko suñu seen wayjuru maam Cheikh diko njabot gango ma ngi dem liggéey yi nak ku ne xam na ne nag lu ci bëree bëri daanaka boobu jamono suñ Basiru boobu lay gën a doog a gane jamono. Mm. suñ Basiru mm. lépp da ko wan ndax li li waxoon sànq rek. Mm. li bëgg. wan loolu lépp ginnaaw dénk njaboot gi maam Thierno moom dem ci liggéey bi ngir jaayante ji. xam ne boobu dafa dafa dafa daw yaram. xam ay këram. ak njabootam ñëpp ñu tasaare nañ ku nekk nekk fenn. te dara waroon na ko lu rek. kon bëgg yonent sallallahu alayhi wasallam koo ko takk weesu na te da mënu ko am dara ci lu ci li ci fii ci yoon bi liggéey soobu yoonu géej gi rek. Hmm. moo tax fi ñu daanee waloon sànq ci ñuy wax ni sëñ bi min eh, tàmbali di waxalee ak demee noonu te yooyu nekkul ay mbiram. Hmm. kon booba la eh, nasaraan bi jël nag jël ko yóbbu ko ci géej gi nag. Hmm. te ngir jàpp ni ñoom war dañ koy sànke wala dañ koy tumuraankeel wala yu demee noonu. te xeetu métit woo gis rek. wala woo xalaat rek ñoom teg nañ ko ko. ca maa yomba sax dem na ba ni am na bërëb boo xam ne daj naa fa loo xam ne sax ruugu génn rek hmm. moo gën a metti loolu te ku ne xam ne ruugu génn metti na waaye lam fa daj nee na ruugi génn hmm. kon lam bëgg wax mooy daj naa fa méttee méttee métti maa hmm. yomba moom daanaka moom mooy mooy fa daj rek xam ne daana dem ba bërëb ba sàppi ko sàppi goo xamee ni sax da gis ni mu ci xelam rek mu ni fii de sax bërëb yàgg naa fi suñ borom baalu ko ko da koo jël nangami junni melentaan ñu sàmmandoo ko ci jëmm ji hmm. ba nee na melentaan woo gis rek benn bu bu ne toll na ni toll na ni cuujub euh, euh, ginaar hmm. yëpp sàmmandoo di mat mu mu mu mu sant mu mu tuub mu gën a bëri mu daal di sant hmm. tegal ko lépp moo tax mu ni na saxtu bi sukkri shikaayata booba la gëj a jàmbat booba la gëj a mu mu dékkoo ndax suñu borom xamal ni kat natt bi kat boo us wala ay wala lu ma leen def wala dara so nag soxal rek lépp ma ñàkk mu sifir mi lépp mm. moo tax dafa kii moo tax mm. muy waxoon ni sayyaranii ilal bilaadi naa'iya wa xaada lii fawqa sami saariya mm. man kat yóbbu na mi ci dëkk yu sore sore sore yi waaye nag yàlla defal na ak dégg goo xamee ni kenn amul dégg toll noonu kon ñu ngi bëgg a dugg kon ci ci ci ci mbir mi moo tax ma ne axtaani allahu bi ruuxi wa fi badani maa laa yuraa li siwaa daati bi laa tafahum yàlla jox na ma ci sama sama yàpp yaram ak sama jox na ma ci loo xamee ni lu kenn du am mm. anaana ni allahu bil muxtaar sayidina mm. sirran kaf kafa kulla kafaarin wa nammaani mm. yàlla jox na ma ci daraja yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lan la ma jox secret boo xam ne mbóot moo xamee ni moo ma fegal iblis rambaaje doon rambaaje li ma yàlla jox fegal na ma loolu moo tax euh, taabat bi bi saf fii xayaati nafsu lii wa ma'i sirran yudammiru saa xasi min aqtaali mm-hmm. kon loolu bi mu xëyee kon ci jamono jooju ngir dem liggéey ji mu ngi mu ngi jógee fi ne wax d'après Mbacke Bari hmm. ci 18 safar boobu ñu waxoon fi ko ne juróom-ñett yi hmm. ndax moo koon xaraj waaw ndax xaraj yow ma sabt la waxoon saabina asar gën a waxoon léegi fukki fan juróom-ñetti moom te benn preuve rek la am mooy liggéey leen sallallahu alayhi wasallam loolu rek la hmm. ci weeru diggu gàmm la woon ci atum 313 ci ci ci ci gàddaay waaw ci atum 1313 hmm. ci diggu gam la tombelu hmm. breb yi la jaar mi ngi jaar ci eh, wax euh, kokki jaar na hmm. jaar jewal jaar luga jaar ndar ba ci dakaru nga xamé ni jamono bi nga xamé ni mi ngi egg jewal ma nga fa egg ci daanaka ci bëccëg daanaka fa lay yendu ba fa jaaré jóge fa dem kokki kokki ba fa egg ci digënté bi fajar gi ki boba taw bi sax nee mi ngi gis bobu lay defar xasida ak xasida eh, ak eh, asma ahlul badri xam ne ñi ñu xeexe won baral sahaba yépp mën ci tuddu tudd jamono oh, iya. boobu waaw mi ngi mi ngi defar xasida googu hmm. ak xasida gi di asiru jamono noy la doon defar xasida yoy ya. hmm. ma fa yënd ba fa juggé ma jaar Louga hmm. yënd fa daal fay juggé ci ñaar safar ba dogo dem fi ne wax eh, ndar fekk fa gouverneur ba ak merle mu ngi wax li leer motax bimu egg jeewal ci la wax bay di ayasaminillah inda jeewali iblisa isnaadaytuhu biya wali mooy xasida gi sëñ Fall doon di jàng yàlla musal na ma ca jeewal mbooleem pexe moo xam ne iblis ma moo doon xëccal yàlla fegal na ma loolu te booba nee na ma ngi doon wérd aayab inna waliyallahi allazi nasala kitaaba wa yatawalla salihin aaya boobu la ëpp lu mu doon wérd jamono jooju moo tax mu ni inna lazi mahaa liqaa a jeewali lahoo nidaan muuxinan biya wali billahi faaraqtu nasaara jeewali day dem bay giñ wat naa ni tàqalee ko naag nasaraan yi na mm. wa xëyri xatan bi laa kon yoyu bërëb bi nga xam ne bi mu nekk jeewal loolu la fa bind nga mm. xam ne fu jógee ba egg fii ñuy wax ndar mm. ndar ma egg eh, wax na ni nafa li fi ndari xablu fi ndari boobu mais bi egg naa yàlla fegal na ma lu jiitu fa ma egg ndar nafa li fi ndari bi ahli badrin usudil kadari booba wa ahlul badr ñi ngi ak ndax dafa wax ne rafiqi kitaabullahi sunna wal mustafa nabi wa ashaabuhu tukki bi kat ñett ñii lay àndal mooy tiire yàlla alquran lay àndal moom ñu may gunge ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak saxaaba yi mooy waa badar nee na ma tukki bi ñett ñii ñu may gunge rafiqi kitaabullahi wal mustafa nabi wa ashaabuhu il barihina duhur ila nabi wajjahtu qablu fi ndari maa qad kafaani ida kal kadari xam ne yooyu yëpp bayt yoo ca ndar la ko wax hudan lasi isa isaatan dari huwa hudan akramun sul xaddari fandar la ma yàlla dàqalee lépp loo xam ne ak loraange la woon loo xam iblis dana mu xëccal ak rambaaj foofee tamit tagg naa fa yonte sallallahu alayhi wasallam koy fekk la kon moo tax ca bokk na ca nag wan ko gan ko boole lu wax ko xiifal ba doy war ba bu ko fekkoon dañu mu pour mu jëfandikoo ko mm. waaye bi mu ñëwee gaynde gan nooy loolu ba am xar moo tax suñ bi wax ni wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahul usd fi ajaamihi talimi yonente bi sallallahu alayhi wasallam fekkee daa nekk sa wéttal yow boo ma nekkoon ci àll bu ni tàll ñayi rek gaynde sax boo fekkoo sax gaynde ga day mujj nooy kon li mu doon wéttali ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo tax moom moo tax mu ni fa ay suma yaqaf ilaahakal ahad yaqafu min xawfihi kullu ahad heure boo ragalee yàlla la yàlla du sàkk dara lu yàlla lépp lim sàkk lépp lay ragal tey nag ku ne xam ne dimension ragal yàlla moom lim ci amoon daa daa kawe moo tax mu ne fustu bi axdi thamani laa takshu bi silatuhu wali laanan asadu la ma jaayanteeg saa borom de yàlla nangu na ko ba jox ma njëg gi te gay na ko nooy na ci man ba mel nim xar na ko boole loon kon loolu ci lu wax ci ndar la ak lan ko fa defaloo ak leen ko doon lépp ak nag ci yàlla musalee nga xam kon jamono fu jugee mi ngi wax mi ngi jël tere bi ni ko ndakaaru ndakaaru gi nag mu nekk bërëb doy waar boo xamee nag suñ <laughs> bi li fi daj nag moom danaka demna sax bo wax ni su ma ko sax do ma bëgg lu dul jël ngàndaay jaasi wala waaw damay xeb xeb ngir xex te dama gis ni bërëb bi jaar yëpp yëpp waxu fa loolu Ndakaaru lek la wax ni su ma ko fàttalikoo. moo tar daal la do motar motax muy nabali ghayri fi findaka kullu adan lii jarrahu makkaaru alla ko ni lil muntaha wajjahtu fii ndakaaru madxan bihi faaraxanil makkaaru tanzilu man bihi lahu dik askaru mahallati waqahan fi ndakaaru xamni lepp rek alquran mu jikki ko ndax ben neeg la bu doy war buñ ko dugulon bo xamni dan ko liggey liggey bo xamni ne ko yemale ci jëmum programme bo xam neeg da daal yam kep ci jëmum xamni boba si musa ga ma ngi wax munta julli ngir tartar munta a ndax neeg bi dafa xat yetti gude yu neeku na wakay mi ngi non ta bimu mu bin ko bama xé mu dugg tank bimu mu tek rab gin wax ni sax dañ faa préparé ay rab yu ak yuy gaañe ak xet goo xam ne sax boo ko mm. noyee mën ngaa dee ci saas mm. dem na sax am na ñu wax sax ni euh, bunt yi sax def nañ ci pour maas ko courant sax mm. xam ne tànk bi njëkk a teg tànk bi rab gi ko jam daa génn ba sar waaye terewul mu tegaat bi ci bi ci bi ci teg dugg keroog ma ngi fa jàng saaru baqara ak imran def ay salaat ala nabi yu yu bëri moom la dundalee guddi gi yonent bi sala sala fekk fa feeñu ko xol ba fiix néeg ba yaatu mm. soxna Jaaratu Laay nee na fekk na ko di ko xamal ni ko da ngay liggéey ji waaye di nga dund si nga kon euh, yonante bi ko fekkee kat mi ngi koy xamal naa ko gaa yu baax yi leen jaaroon saxaaba ya mm. di ko muñ la di ko defal mm. dem na ba tuddoo ko Seydina Hamza fam jaaroon ak nan ko rayee reyen wu lépp di ko defal waaw di ko defal di ko defal ba koy fàttali ko Seydina Hamza fam jaaroon yooyu yëpp kon te nee moom tukki bi ñi la àndal muy mooy alxuraan yonente bi ak kii bi kon ndakaaru moo tax ida zakatu dalika al mabita hmm. wa dalika al amira wa tasbita taara ilal jihaadi hmm. bil armaahi waaye nag gisoo moo bu ma fàttali ko guddi ga ma fanaan Dakar rek li hmm. may sama xel may rek mooy jël ngandaay rek dem xeex ñi waaye yonte sala sa moo ko aaye loolu ah. macha allah xam naa nag eh, eh, xaadim mi may wax ne ma waxtu wi ah, dafa daal di des eh, tuuti moo ci des des <laughs> bëriwul ay ñetti simili yaakaar naa la wax moo ci des ba tax rek xam naa du ci xaj xanaa mhm. kay dañuy sàkkuwaat beneen jotaay mhm. ngir ñëw yëgalaat jotaay bi su ko defee sama mbokk yi nga xam ne ñi ñuy topp ci BNTV Sénégal mhm. euh, gën a mën a nag euh, jariñu euh, ci ku tedd gi nga ni moom moo waral nag dix-huit safar foo ko rek di ko dégg suñu mbokk moom nag nekk foofu ca jàmm gan muy suñu mag di Bada Mbeng ñu ngi koy ziar baax moom tamit nag am kër foofu ca quartier Bëgg Bamba nga na ne foofu mooy suñu kër fa lañ fa lañ fa lañ màggee ca Touba ñu koy ziar baax moom Baye Bada di ko béggee di ziar soxnaam jabu ak soxna ñoom soxna màgget ñoom ñëpp rek di ziar Ibrahima Mbeng Mm-hmm. Ah, suñu frère moom i nekk fële ca mm-hmm. eh, di ko bégg acca ah, mi ngi kon sëñ Modou xanaa rek eh, dañuy joxaat sëñ bi mu mu yëkkatiwaat tuuti rek su ko defee ñu ñëw nag ah, ci kan moo nan lañ war ak eh, ndax sama classe yi dem Touba moom daanaka mm-hmm. ñu si bëri noos la ñuy defee a rek waaw xamuñu màggal su ko defee rek kon ñu tëjee foofu sëñ Fall ñu bàyyi kon gën a di yëkkatiwaat tuuti rek tënk ñu jox sëñ Modou mu daal di yëkkati jotaay bi bismillahi rahmaani حمدي وشكري لمن قلبي بصرا له ردا دون سوخ عند صرصرا حمدي وشكري لمن قلبي بصرا له ردا دون سوق دل عند سرسارا لو زنا إباريد واني بلا سغاد مصعد لي من بني دايما أنصارا لله كل لله أباي مغرمات من هل دهلنا وفي هاجم من زارا لله كل للادا أبار مغرمات من هر دهلنا وفي هاجم من زارا خيرا إن الذين إلى صرصار خسيد زيارتي فارقود دارين أو زارا إن الذين إلى زرزار خزيدو زيارتي فارخود دارين أو زارا ci mi ngi noonu sëñ Fallou daal dina koy tënk nag ci lu am am solo ñu koy ñaanal rek fan yu gën a gudd borom may ko wér ak ay xéewal waaw moom moom daa war am xéewal moom it jaar baax baax na ko bëgg xas day la ak alxuraan ñu koy jaar baax baax waaye nag di ci ziarawaat rek tamit suñu euh, ne ñu ngi ci liggéey bi ku ci mel ni ma Massamba di directeur euh, production bu BNTV Sénégal di ko bégg waaye sëñ Xaadim nga xam ne moo nekk ci euh, mm. caméra bi ma kon nag Birane ci lumière bi di ko ziare kon baax baax ñuy xale yu ndaw nekk ci liggéey bi kon sëñ mu mel ne li ñu jox ci waxtu moo daal di nekk nag ci cëppandal gi mm. kon rek nga daal ñuy baax rek ci mm. naka la taalibe yi war a màggalee di ko sëñ bi diggalee woon ak ah, jërëjëf Massamba sandaat baax ci xasida yi comme ni ko waxee jëlaay moo xaw a tënkal waaye moo mënoon gën a yaatal baax waaye kon loolu mu nekk ab yóbbal rek. Hmm. nga waxtu yi des bëriwul. Hmm. Euh, màggal gi ko sëñ bi da kaa woote waaye ñu sant santale ko ci yàlla. Hmm. képp koo xam ne sama mbég sa mbég la. su bis bi ñëwee sant ma ci yàlla bul xeeb. ginaar bul naw gëléem. sant gi nag tudd nañ bernde waaye tamit bernde ñaar la. bernde ruux bernde saw yàpp yaram sa yaram. mooy bu demee tudd yàlla boo mënee alquran na nga jàng alquran di ko yéene sëñ bi. soo ko mënul mën nga xasida xasida goo mën na nga koy jàng di ko addiyal sëñ bi mm. soo ko mënul man ngay lixlaas lixlaas a doo ko yónnee mm. wala say salaatu ala nabi wala wala wala ci lu baax mm. xam daal bul dem rek mel ni ku sant mbay wala nangam topp waaw topp rek lekk yaa kii wa boo ñu ne maa ngi benn euh, baytu ba kii sax jàngu ko fa ngir jox ko borom màggal gi ndax soxla na ñaan ndax koo gis na xam soxla na ñaan ndax yonent sallallahu alayhi wasallam soxla na ñaan heure boo ko tuddee rek yaa ngi julli ci moom sallallahu alayhi wa sallam ñaan la ci moom mm. kon Serigne Touba soxla na tamit moom buñ fa dajee mm. ñu di ko ñu fàttaliku di ko ñaanal mm. ndax li fi wax léegi fi mu jaar buñ toogee teewlu ko tuuti rek. Hmm. dana xamee ni moom. Hmm. defal nañu loo xamee ni ñu nañu koy ñaanal jamono ju ne. Hmm. rawatina bis bi dañuy ràññeeku nag. ginnaaw bu limee yi nga xam ne mënut a ñàkk ci mbayeen yi ni ñu war a xéwlu waaye nag nañ ci boole waale mbir yooyu. mooy mooy mooy. askaar yi ak ak jaam waaw dañoo diglu naa ni lépp lu ngeen di def tali ko sunna tax si moo bi sunna. loolu la ñuy wax lépp lu ngeen def rek naa tege ci sunna bu leen def loo xam ne daa génn sunna kon suñ baa foofu la ñu tënk ndax dañu da cee woote ñi ngeen sant leen ma yàlla mm. te sant googu dañuy man lottu naa ci ndax li ko yàlla defal mm. man lott naa man kese rek ma sant kon faaw am ñu ma ci mu woo ci ñëpp mm. ngir yiw bi gën a yaatu ngir yaatal ko waaw moo tax mu ne shukru ilaahi xaana fi turaabi baax da jamil sar fi ixtiraabi sant yàlla kat war na ma def ko ci suuf yëpp ginnaaw ba mu muñee muñ bu yàgg dama nekkoon ci noonu ci ci tumuranke bi kon eh, tukki moom lu la waaye bun seetloo ci ginnaaw day mel ni ñun euh, cant gi rek ak bernde yooyu la leen di bàyyi xel daal waaye buñ teelu tuuti dana xam ne tukki mètre waaye sëñ bi dañu koo soppeel nag hmm. defal ñu ko kii ndax weer wi ñu nekk ni di safar hmm. weer wi dafa nekk weer woo xamante ni moom moo doon tijji xam nga danoo arsu xurum yi nga xamee dañ ci daa tere ku ci toro ku ci tur deret ku ci xare hmm. ku ci fitnaal jigéen gis nga bi mu jeex safar gi moo daa tijji weer yooyu xam ne safar bu daa jub si rek dina xam ne ni léegi moom tàmbale na xare yi tàmbale naag jigéen ñi tàmbale tiit xam ne ne safar jot na rek ñëpp seen fi diini tafit ndax safar moom mooy mooy mooy tijji mbir yu métti yi waaye da ngay gis kon te yonent bi yàggoon naa bëgg safar bokk ci weer yi tedd yooyu mm. yi nga xam ne kenn di fi def dara waaye fekk na am na benn xaadima boo xam ne ni mm. mooy moo koy fàggul loolu moo tax gisoo safar léegi buñ ko tuddee rek xel yëpp day belli day wala safar nag jamono melo melo woon ni de weeru metti la woon mm, kenn doowu ko yàkkamti moom moo tax safaan la am la amoon safaan moom am tey ak ak sax ñu koy ziar baax muy Serigne Modou Samb <laughs> nga ne nag macha allah nag li mu ñu fi eh, yëkkati rek ci kaddu yu am am solo yaakaar naa ne mënuñu am lu weesu kaddu yi nga ñu yëkkatil fii eh, ci ku tedd ki ñu barkeeloo ko ah ku ci mel ni sama classe gi nag di eh, Serigne Pandim ah bëgg ceeb nekk foofu ca parcelle moom moom ni nga wax rek daa foog ne moom ah. Ah, màggal gi day dem rek daal di jaaxaan ñu koy bernde ba <laughs> kon mi ngi noonu Pandim kon nga xel bu baax baax kon daal ci li waral màggal nag bu defee boo demee jàng alxuraanu karim wala boog nga jël di berne boo mënul loolu yëpp na ngay berne di bégal jàng di joxe café ki <laughs> dawala ki ñu mel noonu waaw waaw noonu kon nag sëñ Modou ñu koy jaajëfal rek baax a baax di jaajëfal uh, jëriñ Daawda jaay mi nga xam te ni moom mooy jëriñu uh, daayira bi nekk fii kon uh, di daara Mafatihul Bichri mm-hmm. si kër Sëriñ Tuubaa gi ñu koy ziar baax a baax di ci ziar waat sama ba jili ñu ngi koy jaar moom tam baax a baax ndaanaan di ko bégge waaye nag di ci ziar nag Sëriñ Fàllu moom it macha allah nag ci baat bu neex bi macha allah mm. mu ci ayib bi ñu yan suñu borom rek gën ko lafal cat te nag may ko tawfiix ak taysir ci barke borom Touba Massamba mm-hmm. Baye Fall doon leen jottali kaddu yi rek àndoon ceeg sama rakk ji Khadim eh, Ndiaye ci caméra bi ci lumière bi Birane Wàcc mm-hmm. di leen fal kon eh, ba beneen yoon rek incha allah ci seen spécial wàccaay màggal Touba 2024 jërë ngeen jëf mm-hmm.